aousubillah min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wala mbokk yi nga xam ne yéen ñuy diglu di ñu seetaan ñu ngi fii ci kanam Serigne Bassirou xalifa Cheikh Ibrahima Fati muy Serigne Anta Niang moom ay kàddu yu mu jox Serigne Bassirou moom Serigne Abdoul Khoudous mu war koo jottali mboole mbokki taalibe yi ne ci biir réew mi ak bitim réew mi ñu bokk diglu Serigne Bassirou moom ñu diglu Serigne Bassirou Anta muy xalifa bi mu wax waaw ñu ngi leen di nuyu lu bari asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nga xam ne moom la ñëpp doon seen mooy di ko laaj am nañ ci tontu yu wor ba léegi ñoo ngi leen koy jox ñu jox sëñ Bachir bi nga xam ne moom lay wax la mu jottali leen ba ñëpp jot aoudu billahi min sheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim fa asa llahu an yi maa ngi leen di nuyu di leen nuyoo ci turu sëriñ bi sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ Mbàkke mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daarul Mawti ñu toog fii ci wetam mu sant ñu yëkkati kàddu yoo xam ne dañ koy jëmale ci mbooleem ñi nga xam ne dañoo aju ci borom daarul moxti ak nu ñu ajoo rek ci borom daarul moxti moo xam na mu ko daan waxee la ci doomi xol wala doomi deret doomi doomi xol ak doomi deret ñëpp rek ak mbooleem jullit yi ak mbooleem ñi nga xam ne ci biir jullit yi noo bokk sëriñ Tuubaa kaddu yi nag moo di sëriñ bi bu ngeen fàttalikoo màggalug daarul moxti dañ ko indi woon ci juróom-ñetteeli fan yi Sha'baan yi loole muy loo xam ne da cee dëppoo woon ànd ko ak sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy sëriñ Touba ci kaw suuf muy dellu ci la nga xam ne moo daan am rek naka jëkk ci ku fi nekkal sëriñ Touba ak ku fi nekkal boroom Daaru Muxti ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal boroom Daaru Muxti tàmbalee ci sëriñ xalit ak ñi ci des ñëpp mu waxtaane ko woon ak ñoom mbir mi nekk sëriñ bi tey ji dafa jokkoowaat ak sëriñ Muntaxa ndax ñu bare bari dégg nañu ne sëriñ Muntaxa wax fan yii nañ ko may mu dallu feeg ay fan ca kanam waaye tëreewul sëriñ bi jokkoon ak moom léegi ci téléphone mu wax ak moom xamal ko ne ko euh, sabab soose nga xam ne mu sababoon ñu indi bisu màggal gi ci juróom-ñetteeli fan yi dafa mel ne sabab soose dañ na mbir nag bu fekkee ne sabab la ko sababoon dafa deñ buum nga ko téye woon dafa dagg kon day delluwaat fa mu nekkoon loolu moo tax sëriñ bi kon day Eh, yàlla mi nga xam ne mooy yorub attam te mooy dogal nu ko soobee dogal na ne kon lii nga xam ne mooy jëmmi màggal gi nañ ko daan defee ci nisfu Saxbaan yi kon foofu lañ koy yóbbu ndax gàllankoor ba fa nekkoon deñ na gàllankoor nag bu fekkee ne dafa dañ mbir mi day tëdd fa mu waroon a tëdd loolu rek mooy li ci nekk kon sëriñ bi xam ne xam la ne ne képp koo xam ne kii màggalug Daaru Muxti yaa ngi doon xalaat naka lañ koy def ginnaaw bi nga déggee xew-xew yi xew ci réew mi ñu wane ne élection yi dañ koy toxal na nga xam ne kon sëriñ bi yóbbu na ko ci bis ba nga xam ni mooy bisub cosaan bu dëgg-dëgg ci ndigalu sëriñ Mouhamadul Fadil ba mu ko jëlee woon ci sëñ Mouhamadul mustafaa ci ñaar fukki ak ñeent mu yóbbuwoon ko ci nit fukki ak juróom ci nisfu sanbaani euh, ci ci ànd koog sëriñ sëriñ Mouhamadou Awa Balla loolee kon mooy dellu siwaat ci nisfu sanbaan ji Euh, sëriñ bi daal dafa wax ne sabab si sababoon ñu ñu ñu ñu indi ko ci juróom-ñetteeli fan yi sabab soo de dafa deñ sabab nag bu deñee la fa nekkoon lépp noonu lay ànd ak moom kon màggal gi euh, nisfu sax baan ji lay doon fukki fan ak juróom ne moom la nu sunu borom baaxee nu ko noonu kon sëriñ baa ngi ko ba nga xam ne defoon na ko def na ko ànd ko ak ñim ko war a àndal lañ ci waroon wax yëpp wax do wax nañ ko waajtaay wi itam def nañ ko niñ ko war a defee commission yëpp ngi dox ni ñu war a doxe euh, CRD ak yëpp defoon nañ ko kon nag leeralaat nit ñi ne leen leeral googu ñu leen waxoon ci njëlbeen ne leen am na loo xam ne li munta ànd yaar yu munta ànd la ba tax ñu yóbbu woon ko ci Eh, juróom-ñetteeli fan yi mu ànd kook sëriñ Muntaxa te ñoom ñaar day lépp lu ñu joxoñ rek xam nañ ne loola rek ñun ci loola la ñuy topp bi mu ci waxtaan ak moom léegi itam ñu déggoo ñoom ñaar ci ne ndegam sabab sa dañ na nañ ko yóbbuwaat kon ca bis ba nga xam ne mooy fukkeel yi ak juróom di nisfu Saxbaan ji kon lii mooy xibaar bi nga xam ne moom la sëñ bi waxoon ne nañ ko yëgal ñëpp fu waaye mën a nekk nga xam ne màggal gi nisfu Saxbaan bi lay doon muy fukkeel ak juróom ci weeru baraxlu bi ndax loola mooy li nga xam ne moom moom la déggoo ak sëriñ Muntaxa ci waxtaan bi nga xam ne waxtaan nañ ko léegi ci téléphone bi kon nag euh, murit moom day dégg ndigal te di ko topp képp ku bëgg lu baax itam foo dégg lu baax nga topp ko kon yàlla mi nga xam ne mooy mën a jubal mbir yàlla na jubal suñu mbir yàlla mi nga xam ne moo mën a tawféexal yàlla nu may tawféex sëriñ bii di sëriñ Basiiru Anta ñoom li ma koy faral di wax rek ne soxla nañ la fi yàlla na yàlla may kattan ak wér ñu gën a gën a yàgg ci kanam noonu lañ ko koy ñaanale ak sëriñ taxaam mi nga xam ne la ñu wax ñoom ñaar ci téléphone bi duma ko wax ci ci rajo bi du ko wax ci télévision bi waaye daal dal na xel bu baax a baax xam ne sëriñ Touba ak borom Daaru Muxti la fi nekkoon rek moo fi nekk te dara mën ko fee jëlee yaakaar naa ne lii mooy li nga xam ne daal buñ ko déggee rek danañ xam ne euh, ku bokk ci borom Daaru Muxti rek sa war naa dal ci ne mbir la war a jiitu lay jiitu la ca war a topp topp ca su ko defee lépp lépp jag loolu mooy li nga xam ne moonu moonu may lii tey di ñaan yàlla sunu borom may nu fekk ko euh, te lépp luñ ci ñaa ñaan sunu borom nangul na ko lépp loo xam ne lii euh, jàng nañ ko ci ay ñaan jëmu ko ci borom daaru moot ak njabootam al alxuraan ji xasida sëriñ Tuubaa ak mbooleem li nga xam ne def nañ ko sunu borom jotal leen ji sëriñ bi daal lii la waxoon ne nañ leen ko jotal ndax laajte yi bari na dem ba tey bi ñu déggee ni mel na ne élection yi dañ koy toxal te nun de lii rek mooy sunu itte mooy sunu bëgg-bëgg mooy baatu sëriñ bi ak bëgg-bëggu sëriñ bi fu mu ko joxoñe rek ñu ne foofu la yàlla dogal na sabab si dañ ne kon delluwaat na fa mu nekkoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullah mbokk yi nga xam ne yéen a ngi diglu di seetaan euh, dégg ngeen noonu sëriñ Basir waxe ci ndigalu sëriñ Basir mu mel ni ñu jàppoon màggal gi le 18 février màggal gi kon jóge na ci le 18 dellu ci la 25 ñi ko jàppoon juróom-ñetti fan ci saxbaan jóge na ci saxbaan juróom-ñetti fan yi dellu ci baas bis ba mu baaxoo doon muy fukki fan yi ak juróom loolu lépp nag mi ngi teegee ci kaw ndigalul sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy toog jataayu sëriñ ak sëriñ Basiru mi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.